dala ko nga xam ne rek moom moo di ngañ bawol bawol nuyu nañ la ngañ sant yàlla sant sëñ Tuubaa gërëm la mhm. gërëm tout le monde am di sant yàlla bu baax a baax kontaan ci invitation bi mhm. sur la télévision pour que ma leeral euh, li nga xam ne xew na ci la météorologie ci les plis retardement de nga am loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàcce ngir leeral nuances yi nga xam ne ñoo war a ñëw ak yi war a ñëw ban période lañ war a ñëw ak loolu lépp nekk loo xamante ni expert lan si. yàllaa ñu ci may. ñu am loolu wax loolu moom leer na léegi en tant que expert waa météo ni leen incha allah bi taw bi dina ñëw ci fin li nga xam ne rek moom moo di mai bi bii ñu dugg nii. waaw dëgg la bi ma xoolee ma jigéen mu xot soj eh, baqata yi génn mu yor ci laa xam ni nawet bi dugg si. ah ndax nawet bi jigéen rek mooy sunu météo ñun nga defe ne météo la ñun dañoo dajale ay asthmatique ak ñi nga xam ne dañu am sinusite buñ xëyee rek ñoom la xool gaa yi defe ne jaww ji la ñuy xool di lëngër ñun ñoom la ñuy déglu ak bu seen dënn yi am na nu muy riiree rek ñoo xam ne léegi mu naw di am na nu muy kiiween ñoo xam ne bët léegi mu séeb bi ñu uh-huh. xoolee mu jigéen nag di nga am mu yor ñeenti musuwaal ne fimp fimp fimp ci xam ne ñetti taw war naa ñëw uh-huh. ñetti taw yooyu war a ñëw nag ban période la war a ñëw di nga mi ngi aju ci baqataan <laughs> ay baqatakam di ngay xamee. Euh, day la ñuy jël observé day baqatama jigéen yi daal di koy xool xool microscope daal di xool foofu ci la ñuy gis xiin yeeg yooyu yëpp ci fa koy. léegi yow fi mu ne ci kaw baqata yooyu kon. Euh, ban xiin voilà léegi yan xiin yi fan lañ jugee ak fan lañ war a daje. ak xiin bu góor beeg bu jigéen bi mm. fan lañ war a daje ba taw bi am. ñu xoolaat ba xam bi voilà fuux googu day wane ni fuux gi fuux la goo xamante ni gi boo ko xoolee faram fàcce ko da lay wane ne am na ñaari niir yu mag yoo xam ne ñi ngi war a ñëw mhm. benn baa nga jóge Mali benn baa nga jóge Murtani ah. dana war a accroché kenn ki nag niir bu jigéen la benn bi niir bu góor waaw niir bi ñu ngi ko mi ngi mi ngi jóge bi jóge Mali daa xaw mhm. ànd ak li nga xamante ni bi moom la ñuy tuddee aw tàngoor waaye bu Murtani bi mhm. poussière bii njëkk a ñëw poussière poussière dana njëkk a ñëw. waaye niir bi niir baa ngi koy dàq. gis bu ko jàppee niir bu góor bee dàq bu jigéen bi mu dee. <laughs> day jàpp tay mu dee dàq xel wii muy daw. kenn mën dàq mën waar xel. ah nee na xel niir bu góor ak niir bu jigéen mooy doon ñooy ñooy jaxasoo bu ko defee niir mu taw mhm. xam nga léeg-léeg nga gis taw boo xam day taw tuuti daal di sëbet. niir bi daa jàpp koo xamante ni kii eh, kii yóbbu mi nii miir la léeg mu jàpp koo xam ne miir miir bu màggat la miir boo xam ne daw naa daw a daw a daw ba kii bu ko defee bu ko kiiwee rek di nga moo tax ndox ma du bari waaye waaye boo jàppee bii ma gis moom ab jeeg piir la jeeg ab miir dënk la wala jeeg bu dalee ci kawam tey moom tey tey musiba waaw nga li mooy gëm ah. nga ñi lay waxee ci dañuy jàngat c'est la météorologie. ah d'accord kon yow bi jógee Mauritanie. bi jógee Mauritanie mooy bu jigéen bi mooy jeeg bi. jag jeeg bi mooy jeeg bi jeeg la boo xamante ni bu jógee na Mauritanie di ñëw. Ah. ba nga jóge Mali di ñëw ma ngay riir. waaw te niir bële dafay yàgg a niiru. <laughs> ci boole li ci bokk ah maa la bëgg mën ngañ niir bële. waaw daa yàgg niiru. dafa yàgg niiru mooy moo tax du ma gisee bële. waaw parce que daa toog lu yàgg ab niir romb ko. Ah. moo tax niir bi bi mu ko gisee. waaw ba dëgëri bële nag moom ma ngay di daagu moom yëgut ni kële ngay dikk. ma ngay daagu di jéem a wane ni di nga mokk. pooj ak niiw ak nii niirab murtani bi. waaye tey musiba am. ah musiba am dana ko gaañ. ñi ngi xaar ah niir niirab mali kii taw lay wax. niir lay wax yow nag yow. kon niir bi nan la ko mën a gaañee. ah ma ngay ñëw de. dégg ma ngay ñëw. ma ngay ñëw. waaw léegi njëkk na ko galgal lonk tànk ca ndor. Ah, mu rëcc ah mooy bi ñu yeewoo benn jour dafa fekk kii bi tooy. dafa rëcc da koo roof galgal niir ba rëcc. waaw mooy bi ñu yeewoo benn keroog bi mu ko katafoo. waaw ca ah, niir bi. waaye dana ko jàppaat. fu mu koy jàppee. waaw bi ñu xoolee suñuy calcul. Mm-hmm. mi ngi ko war a jàppee diggante. <laughs> viréel émission bi fu la neex. <laughs> ba nga <laughs> waaw. dafa la ko war a jàppee est-ce que ko war a jàppee exactement. mi ngi koy loolu. déedéet da nga bi ngeen xoolee ci. yi ñu calculé. la ko war a jàppee jàpp nañ ñi daal. fan góor mi ngi rëbb. dana ko tekk booru paal. <laughs> waaye dama barest ko waat nii ba dana rëccaat. Ah. foofa danañ fa def toq toq noonu rek. nam taw mu ndaw ci paal ñëw ba pir. waaw waaw paal ñëw ba pir noonu. ak ngay ngay léegi nag fi ñu jàpp daal ni di am foofee nga xam ne ku niir bi di wëree ndomba waaw niir bi ni muy demee noonu daa mat beneen niir ah kon ñaari niir yu góor ñoo koy wër boobu da koy ko parce que jongama ji ni jongama ak niir bi ni muy daa daagoo ci jaww ji moo yëngal asamaan moo tax taw bii bii xanaa oh. yow kon euh, euh, en tant que moo tax fan yi mu tàng. waaw waaw tàngoor wii. waaw nee naa la bële daa ànd ak tàngoor. bu mooy bi jógee mu tane Mali ba yow yow yaa ngi juum de. dama ne bu Mali bu bi daa ànd ak poussière. waaw bu moo ànd ak tàngoor bu Mali bi. mooy kon bu Mali bi moo ñëw nii. mooy ñëw mm-hmm. te boobu moo gën a. garaaw nag bu jógee kaw weer nag moo bëgg njëkkante ak di nga am niir niirab malien. en tant que léegi bu jógee Cap Vert bi moom fan la tollagum instant bi ban bi jógee Cap Vert bi jógee Cap Vert fu mu toll nii mi ngi jay jay mi ngi ci digg Ndakaaru moom ah? parce que da ko bëgg a karkaral ah, ah, te ko karkaralee moom kee ñàkk ci way Kër Masaal dinañ sulliko tiwoy tiwoy Sëriñ Mbay Caam suuroon yëpp a def de captage moom fu mu toll boo jëmut dañ naan amoon na fi daan naam ba suba waaw jërëjëf yëpp expert rek expert ci wàllu kañ di benn expert wax li la saf la <laughs> ñu ngi leen di jaajëfal su kay mbay daane